auzu billahi mina seytaan rajim ginnaaw ma sante yàlla julli si yonent bi di sant sama ñaari waajur di ñaan sama yaay yàlla na fekk sama njëriñ sama yaay yàlla na fekk sama njëriñ képp ku nga xam ne sa yaay nga dund yàlla na fekkee seen njëriñ bu ngeen mun kaa teral waaw su ma si jógee di nuyu kenn muy sama sëriñ sama wasila muy maam Thierno baabul laahi baabul jannate borom sikóori borom daaru yàlla na fi yàgg te wér daaru yàlla na fi yàgg te su ma jógee di nuyu fu ma dëkk muy sam-sam un deux trois te man ñëpp xam nañ man doomu dëkk laa nekkuma mburu koñ nekkuma mburu gox mburu dëkk laa te su ma jógee ñëpp may topp di nuyu waa Diamaguène Thiaroye Boune Kër Massar Malika yoof ah fépp daal Grand yoof ñëpp ñëpp fépp ko nga xam ne fan su baaba jaxaleem ko man jaxal bi maa leen di nuyu di nuyu waa Malika waaw yee moo doon ñu ngi lay fay ginnaaw bi ñu sante yàlla ñu ngi julli si yonente bi di gërëm suñu ñaari waajur di nuyu ngor wakaam yoof di jël nuyoo waa di ko teg su loxo xalifa général bi maam Doudou Laye di ñaan mu yàgg fi te ak wér di nuyu Cheikh Mansour Diouf mi nga xamante ni moo fa nekkal Serigne Touba di nuyu aussi sama Serigne Serigne Cheikh Fall ibnu maam Saliou Fall borom gàcci di bëgg assistance bi fi teew yëpp di bëgg sama papa Matar Ndiaye wax dëgg neex yàlla nit ku nangoo Matar Ndiaye sama papa la sama lépp la maa ngi koy bëggee bu baax di kontaan si moom di bëggee assistance bi di bëggee champion yi di bëggee Serigne Ndiaye di bëggee aussi di bëggee sama gars yi ma àndal ku si mel ni Layti Vince ak Khalil maa leen di bëggee bu baax di bëggee Mbayaar yi di bëggee waayoo eh, maa ngi bëggee bu baax macha allah maama di nuyoo baa ngi noonu ayca doxalal foofu nga féete jërëjëf am na solo Modou Anta Baba Jaxal nuyoo na caatu ngéwél nuyoo na waaye yaakaar naa ne ci kanam tuuti dina jax Baba Jaxal mbayaar gi nga jël de mhm. muy caatu géwél te gaynde mer la fanaanoo lan moo tax nga jël ki nga xamante ne mooy caatu géwél waaw su ma si jógee may jaale waa parcelle muy seen doom bu nga xam ne dafa wàññeeku mhm. muy muy daan yàlla na ko yàlla yërëm fu mu it ko gënal fu mu jóge waaw lenn daf ma neex mooy li nga wax muy mbayaar te man mbayaar laa ay mbayaar laa dëkkal eh, kon su ma gisee sama moroom mbayaar rek kon loolu dafa may neex te bu dee loolu dëgg moom mbayaar la ay nitam mbayaarkat lañ eh, kon neex na kon ñu taamalee bu la neexee moom ak ay supporters am ñëpp kaw tribune ba ak samay supporters ñu mbayaar lu mu bëgg rek ñu dem si waaw. jërëjëf caatu ngéwél la ngi noonu wala ànd king mbayaar waaw waaw lan loolu ah na ngeen leeral quoi lan mooy mbayaar am na ñu ko xamul quoi mbayaar gi kii nee na mbayaar la kii ne ko. non sama mbayaaru boobu laay wax fasu mbayaar laay wax waxuma benn façon mbayaar fasu mbayaar xam nga mbayaar mooy dooni naaru góor foofu laay waxe moom nag bu dee beneen mbayaar moom ay xalaatam la topp. kon baax na kon mbayaar yee bokkul. Eh, bu man mbayaar carte la. Eh, xam nga man Yoff laa dëkk Yoff amul carte. xam man wëndëng laa te wëndëng bi moo moom fépp te mooy boroom fépp moo tax. kon kay doonal wëndëng moom mu doon bàyyi ko mbayaaram rek du gën loolu gënul. non wëndëng bi jeexal na indien bi. waaye yéen képp ku xam jaxal xam ne jaxal moom ragalul dara lu mu daan def lu ko raw lay def sànq maa ngi dégg ngeen ne daa dugg xaw ma fan daan fa xal la ñaara nit waaw. waaw mais dàq na bis ni ki tey dootu fa duggate buñ ko joxatee avance buy jëm foofu day naan déedéet dooy na waaye yëmbal baax na bala 14 incha allah waaye dangeen di jaawale dooleeg maas am ñi nga xam ne maas ak do ak volume bokkul mais sant yàlla lépp lu nga xam ne manqué nañ ko te manqué na si ñun dañ ko mottali incha allah te lépp lu làmb ji laaj man Baba jaxal maa ngi si amul lenn lu may bàyyi damaa bàyyi sama lépp ngir làmb tamit ma bàyyi sama lépp ngir dimbali sama yaay teral sama yaay kon du ma ko caaxaanee te du ma ko fooyee di wax kii nii nekkul kii moo may téye moom xam na yàq naa yàgg naa delloo avance bi mais tey nag xaw ma ko ruux ba mu jël ko mais dina ko coûter cher waaw. xëy na ñu noonu la ñuy gisee rek mais ñun doon naan waaj mais nag pour combat bi man kii. wax bi du bari quoi bés bi daa am lu si war te waru ko man la war moo tax du ma baree moom wax na wax nag moom nar a tatati na def lu ko sax moom moo tollu foofu quoi. waaw. non xam nga loolu ay détails la kii ñi ma daan yëmbal ñëpp ko dàq bëre ñëpp ko ëpp doole. Bébé Diwane moo dàq bëre kii moo ko ëpp doole. non dañuy waxtaan quoi xam nga làmb xam nga làmb bul wax lu ko neex quoi xam nga làmb bu baax. Bébé Diwane moo man kii moo ko dàq bëre Alliance Birame moo man kii moo ko dàq bëre Fils de Zalo moo man kii moo ko mënaan petit baabooy petit baabooy caatu baay paate nga boo fi newee di lim sax fi ngay fanaan kii ñi ma daan foofu ñëpp ko man xëy na làmb moo doy waar rek am lu ñu boole quoi mais kii du ma moroomam sax wallaahi. Alliance Birame nga dafa ne Alliance tey mu ne petit baabooy ne caatu baay paate Bébé Diwane mais dafa ne Baba Jaxal wëndëng bi wëndëng beeg ñooñu bokkuñu. man ba may xale ba tey dama tarbiwu bëri nekk si làmb te le 14 janvier incha allah lépp lu fay am maa koy def muy mobiliser neexal stade bi di bëre di daan te man maa koy def incha allah le 14. combat bi ci caatu ngéwél la gën a diis serve boppam wax ji bëriwul pour man ci combat bi ci moom la gën a diis. waaw garde suspension boobu noonu man jàppee moo ko suspension ndax lan ndox ñu fa nekk ñoom suñuy papa lañ mais dañ ñoo jëloon pour yar yar suñuy supporters te ndaw bu nekkee si kër il faut ñu yar ko te ñooñ duñ leen mës a mere muy waa CNG ndax suñuy papa kese kese kese ñoo fa nekk. jëluñu décision pour yàqal ñu wala pour aj ñu pour yàq suñu carrière mais dañoo jël pour yar ñu loolu dañ ciy ànd Sénégal bukki amateur yi le promoteur des jeunes espoirs revient le 27 novembre ci arène nationale bii yoon nag dafa nar a gën a tàng gën a neex ndax amateur yépp ko namoon moom Sam Mbaye Fall njiital Sam Production mu ne le 27 dama leen andil combat bu rëy combat bi dox ci diggante ñaari goxi làmb ndax ku wax Jacob Baldé wax Pikine wax Ama Baldé ku wax Ndigal wax Géejawaay wax Balla Gaye 2 muy grand combat di combat bu amateur yépp di xaar la ca gën a neex nag mooy bile drapeau la ñu dippe Omaro Omaro bu Serigne Saliou Omaro bu Cheikh Béthio Thioune Omaro jàmbaari Serigne Serigne Saliou Ndigal Thioune nekk ambassadeur u KPI gannaaw bu yàggul la ko waa Raaya Music Awards daal di def communicateur du peuple sàmbay ne fête bi kon ci arène nationale le 27 combat spécial ba lay brisé bu écurie jàmm ji kër Mbay Fall moo nar a jàkkaarloog confiance bi écurie Tivaouane mu ne combat spécial boobee nag mooy trophée ETDR di établissement Touba Darou Rahman sàmbay fa séene leen a delloo njukkal ci seen njàmbaar ak lu baax li nuy def ci làmb ca combat préliminaire ak sura mbër bu njàmbur Casamance mbës bu Malika nekk écurie Bathie mook Siteu Lawbe bu ressortissant Fatick jam zo 2 bu Bosco Sow ak bébé les bu école de lutte Balla Gaye kooba bu caaroy mbooloo ak bébé ama bu école de lutte Balla Gaye njool waalo bu écurie Grand Yoff mbooloo dana jàkkaarloog Tyson bu écurie Songane Gueye metti bu Kër Massar ak Antou Ndiaye bu Dalifor mbooloo bas 2 bu caaroy sur mer ak maaf gi bu Badajon ñu ne bile bés nag événement lamb moo tax sàmbay daal di dugal ñiy jàppale lamb muy sponsor officiel ya ñu ànd ceeg xam ne li jëm ci wàllu bâtiment ci wàllu génie civil ak mbooleem lu jëm ci wàllu BTP bàyyil ak ñoom ànd ceeg waa nuuru la jus bi baax te wóor ñi nga xam ne façon jus naturel boo bëgg am nañ ca buy seral xol rax ca doole ñu indi leen bu bees tàq bi sénégale yi doon laaj muy jus gingembre ba ñu ànd ceeg alburax automobile ñi nga xam ne li jëm ci wàllu vente ak location automobile bàyyil ak ñoom dañu la koy defal ci njëg yu xéewale te mucc ay ànd ceeg laay bu deef commerçant bu mag bi nekk ci Petersen en face Orca di jaay lépp lu jëm ci wàllu habillement prêt à yu amul fenn ànd ceeg waa muy bois boisson énergétique bi nga xam ne boo nekkee compétiteur nga xam ne boo nekkee sportif moo war a nekk sa xarit ndax moo lay encouragé ci ay entraînement tey dalal sa yaram ànd ci nag ak waa Penipro muy entreprise bi yëngu ci wàllu gel lave-mains lave-vitre parfum de chambre ay eau de javel ay savon liquide ak ay savon poudre maanaam lépp lu jëm ci wàllu setal ak xeeñal xet gu neex ñoom waa Penipro ñoo ci teg loxo ànd ci nag ak waa Go Parfum nga xam ne façon parfum boo bëgg ci àdduna jokkoo ak ñu jox la li nga bëgg kon mbokki amateur yi bés baa ngoog le 27 novembre ci arène combat yi ñu dippe Omaro bu Serigne Saliou sàmbay ne entrée dama ko yombal ba dee bu dee supporter 2000 francs la amateur 3000 francs bu dee loo 5000 francs kon mbokki amateur yi bés a ngoog ci biir bés yi combat bi kenn warul xaar ku la ko nettali muy diggante Zago Baldé ak ndigal bu école de lutte Balla kon ay ca leen ñu dem ci arène nationale le 27 novembre